bi ñu yégee li nga xamante ni moo dal li nga xamante ni landing meng mu nekk lo xamante ni bi ko jégee ñun ñëpp la jeunesse de mbambilor euh, département de Rufisque commune kam ñu am lu ñu miti lool euh, li tax ñu am lu ñu miti euh suñu gox bi seetaan bi trop euh, responsable yi nga xamante ni benn bokk dañ ci bénéficier am ci ay teranga seen tour dem fu ne ki nga xamante ni sabab loolu muy landing menga mi nga xamante ni moo indi benn Bokk Yaakaar fii si commune Bambilor ci département de Rufisque mu dem ba bëgg a rencontrer ki nga xamante ne ni mooy président Macky Sall mu tekk tij ñi nga xamante ne ñoo fi ay notable ñu ko lool jafel ko loolu ba tey mu def de la faim bu am tey ji huit jours ñun nag ñu nekk ay ndaw yi Benno Bokk Yaakaar tout particulièrement ñu fekk fii euh, jeunesse su commune Bambilor ñu dajaloo boole seen i doole métitlu ñaxtu ànd ki nga xamante nii je suis un responsable politique je vis dans la commune de Bamilor. moi j'ai jamais fait la politique je l'ai fait avec le président Macky Sall donc il m'a appris à le faire et je pense que toutes les batailles hein, qui se sont passées ici comme je le dis hein, il y a d'autres batailles qui qui étaient plus chaudes que j'ai menées ici dans la commune. ay kilifa ils m'ont demandé à sursoir sursoir na parce que nit là comme nous. mais sur ma soirée aussi peut-être que demain mën na am ma élan en politique nous ànd waaw donc de toute façon maa ngi il euh, y aura des échos favorables du côté présidence. Si aujourd'hui peut-être le parti ne réagit pas, j'en prendrai considération et au moment opportun, je prendrai les dispositions nécessaires.